2STV nekk première l'histoire de Sénégal chaîne télé privée anniversaire 2STV di dox sunu borom di doxal bu mu egg tey mu nekk 9 de anniversaire di 2STV 2 de Sénégal chaîne télé privée tey noonu dañuy indi ay feem yoo xamante yu bees tàkk la si togg si wàllum togg tey dañu wax groupe bu ne loo mun togg ba toggee mu nekk loo xamante lu neex lu doy waar 2STV dinaa Sénégal bu xalaatee yeneen télé yi bu xalaatee 2STV nekk famde kalɗo gonɗon no goni ɗon 2stv hannde woni anniversaire ene wona ene wona ha woni hannde duuɓi nogasi walla duuɓi ko ɓuuri ɗon ɗon woni hannde duuɓi jeenayyi duuɓi jeenayyi noon ko gueɗal duuɓi jeenayyi ko yama duuɓi nogas studio 2000 fuɗɗirnoma guila nden ha yettiɗi yettiɗo damay dem leegui leegui dem hooleji yero nalla mum waha ak gayi yero kayi kayi yero waw waw waw waw waw hool waw waw eh, eh, nickel waw yero commencé na nickel d'abord te affaire bi demagul fenn. non daf fu mu toll nii dafa doy waar. waaw yero dam lay laaj est-ce que waa mun nañu togg wala mënuñu togg. am na ñu mun togg am ñoo xam ne mënuñu togg. <laughs> lu tax man loolu ça c'est sûr et certain am na ñoo xam ne mënuñu togg. <laughs> Ilimaan waxuma lay jaakaande. Ah. dañoo def nii rek pour def la forme kon man xam naa ne am na ñoo xam ne mënuñu togg am na koo xam ne moo gën a xam affaire togg c'est le moment de soirée mama xam naa après dina ñëw kon man. li ma soxal moo nekk euh, tous les téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi seetaan pour le moment euh, la direct de la 2STV ici dans le centenaire ñu waree a wane sunu agent yi yu jigéen yi ñaawul yi animateur technicien réalisateur caméraman woo woman ñoom ñëpp ñoo dajaloo fii pour def quatre plats quatre plats waaye man damay wax téléspectateurs yi nañu yónnee bu ñu bëggee gagner des cadeaux ay iPad xam nga iPad iPad c'est la dernière saison yi mujjee génne da ngeen di yónnee ci 26 500 da ngay def musique nga yónnee ko benn fii 500 loo gën a yónnee pour nga mën a ay paat bi nga xamante ne bii nii ay ay iPad ay iPad yu bari la waa. Yero merci damay dikkuwaat léegi léegi waat def ndànk jëli ji ndaanaan si biir ndaanaan yi ndaanaan bu yeewoo si ndaalam lay naan dama wax maman Soda maam je le disais comme d'habitude femme noire teint noir la fierté du Sénégal la fierté de l'Afrique maam Soda maama dañuy jékki-jékki daagoo ndànk ànd ak lu ñuy togg nu mu voilà sama maman mu ngi nii. waaw loolu moom moom moo wéy gaal la ca kaar la siir la ca gëdë. gis nga de gis nga de ndeysaan la ca kaar. ay siir la ca gëdë. kër la ca ko ki sëriñ la di yëg na yëdi. walaay. ndeysaan voilà ah. mama gis nga gis nga fii. waaw fu ñu nekk nii tey xoolal. kii mooy capitaine bi. mooy mama Daba mooy capitaine groupe 1. tey boo xoolee yow yaa gën a xam togg na lay demee dañu bëgg nga dugg nga jaagar jaagar ndànk xool lu ñuy def est-ce que am lu si saf wala am na xamante ni saful dugal nga daaga ndànk ndànk xale yi waaw Adja ko defee nag yow waaw maama dafa mel ne yow yaa jiite waañ mi maa ko jiite tey waaw ma ñëwoon di leen seesri ba xam lu xew ak yi ma gis te toggu démb ak bërki démb ak barkaati démb waaw ah. yaa ngi may delloo si waat ci cosaan waaye maa ngi bëgg a miir ma bëgg laa laaj loo bëgg a togg ak noo koy togge euh, jërëjëf Fall ah, waaw lu ma wax lu ne yaakaar naa ni ci togg yaa ma jiitu ci cin yaakaar naa ni bu jaaree yoon xam nga bu jaarul yoon xam nga dëgg la ma ànd cee xale yu yaru yu baax yii te mën a togg sama xale yi gis nga kii tey daf maa bett ndax mi ngi jaagar jaagar dama ni leen woon day tëdd nelaw ba 2 heures mu ñëw dank lekk pare ci dem muy Eva Tra ndeysaan wëlbati ko ànd ceeg Aysatu Anca Touré mais di seet bu bees fas yéenee def teraanga nag ci ay gorom yekkal leen añ bi waaye duma ko nangu ndax lu ñu togg suñu añ ba mu neex mu yóbbul leen ko ah ndeysaan ànd ceeg Roqaya Mbooj mais muy sunu réalisatrice bu ñaawul bee nga xamante ni dëgg la gànjool gànjool la lépp lu jëm ci Good Morning moo koy réaliser ak yeneen yu sew sax ci biir 2STV. Adja Mame ñu ànd ak it suñu Cécile benn kan waaye gis nga Adja mi ñu àndal tey. ndeysaan jekk lool. Uh-huh. moom la ñu àndal tey ci togg bi. Adja uh-huh. ci musóor gi. waaye gis nga lobb maam jaara mi. ndeysaan dikk it ak seen feem. indil ñu ñaari gaz. maam ma boo ko gisee. ci laa war a togg sama jaga tey. dëgg la muy ceebu jënu jaga. def gambaas def def ay donj yu baax. diigal ko ci. allah rek daal di koy sos ci kaw. rek senegal jëm kanam. waaye yow waaye maam ma doomu ndar dafa am feem yu ñu leen jàngal. yéen waa ndar ñun waa ndar. mooy ban. gannaaw dëwlin ji dafa yéex a ñëw. dama daal di ñuluk sama cin. cëm pour gagner du temps. allah akbar lii lan la. daal di diigal samay légumes. cëm soo de maam ma. muy bax. cëm. wut feneen fu may tey. daal di jël nag bu dëwlin ji ñëwee. ma teg ko ci gaas bi. rosi ba mu dog. sama soble ak benn dogub yéet ak euh, kaani xeeñ gu verte gi. dëggal ma lii. nokkas sama nokkas bu fat ni ko ci pëyi. jël ajaa bi rek <laughs> yëngale ko. <laughs> waaw yow maman Daba dafa am lu ma jaaxal. waaw yow maman Sow day jommewoo. xam nga bu ñu xalaatee 2STV nekk premier l'histoire de Sénégal chaîne télé privée dëgg nekk loo xamante lu doy waar tey bu àdduna bi kenn ku ne di wootee di wax télé ak fu ne ak lu ne fii lay amee mhm. tey ngeen créer loo xamante lu doy waar xam nga sànq démb da nga nekkoon di wax da ngay def tumbal si ay xamante est-ce que da nga def si jin bi am na jinjeer bu ñu si def si laaf yi lay la la waxal persi nga ne lan persi waxal laaj laaj waxal kaani xeeñ kaani xeeñ waxal kaani salaat kaani salaat waxal poobar ak kaani waxal laurier laurier moom laa dëbbee sama roon allah dëggal ma lii lu ma gëj a gis ca samay mbokki ca samay mbokki doomu ndar laa ko daan gise Adja Mama mooy souffleur ci ceebu jën bi lay dem dëggal ma lii kon noonu mama kaani kaani tukkili mbembe waaw ci lay dem xaar ju bees nag ma daal di koy rimbi rimbi <laughs> man fan laa jëm Sénégal dama xamatul man Sénégal fan laa jëm. doomu jàmbur waaw. ba chaîne bi de chaîne bi ba tey ñu. waaw bawuñu ñu nekk France États-Unis Maroc partout dans le monde. lii ñuy togg tey ñun ñëpp yéen a ko moom. yéen a ko moom jeex na tàkk Adja dafa am nag lu ma. Adja seen ndeysaan te bëggoon ànd ak sama cameraman. waaw mu jëlal ma ko ndax lii mënuma ko bàyyi muy réer. waaw mooy dama gis fi ay lujum ak ay yu saw ay géej ak ay yu baax waaw ma bëggoon nga jëlal ma yii ma laaj ma laaj nag Daba Soumaré yii fu mu juree. ak lu waral lii am na yu ma gisagul de. waaw jaaxal ma waa Daba Daba. li ma la bëgg laaj. loo bëgg a xam. damaa gis nga teg sa géej gu forox. waaw. teg sa yéet. ma gis ñaam bi jéegi sawi ak tamaate njàmb ci bokkul ak tamaate loqati gi waaw ma gis soble boo nokk asi ko ba mu nooy waaw ma gis bool bu def yu sew ak souffleur waaw ak ne xale na ca ginnaaw di xool yi waaw kayotoog nawet di xoolal nga xoolal ma fii jën yu mag waaw kaay jën yi jaaxal ma nag ma seen ci benn geenu jën boo xam ni waa loolu daal jaaxal na ma lii il faut nga jëlal ma ko jëlal ma loolu jëlal ma jëlal ma loolu waa lii lu mu doon nii ak xaru bopp ñun doomu kii géer la tëli banque biir tëli la tudd ajaa mama waaw ñun doomu ndar waaw bu ñu amul xëdd amuñu jarañ amuñu coof amuñu kocc bër bii la ñuy jël ceeb ko du yaa gis genn gi maa ko gis xoolal dabba sama caméraman bu ñaawul bii taxaw xale bu yaru bii waaw dabba nee na ma genn gi rek laa bëgg dama cee seen nag waaye ba dara ndiir dib lebu <laughs> moom mu xam jën lool ndiir ma jaaxal dama ci gis leneen lu ma jaaxal. lu ma la bëgg laaj muy dama gis euh, tëll gis geen. d'accord gis xaru bopp. waaw gis na génn bu ndaw boobu nga xam ne moo gara mu yabooy. moom lu tax nga indi ko ci ceeb bi. mama ma Soda nañu doxantu. mama Soda kaay à suivre la. yabooy bi yabooy bi à suivre ma eh, à la ma ni jëlal ma ni. <laughs> dama leen ndànk rek du metti a affaire bi du léegi de. léegi nag kaay gunge mu ñu dem. Adja Adja maama nee na yabooy bi woo rey. moo ma jaaxal. boo daggee geen gi dagg bopp bi ba roof ko. waaw da ngay bàyyi bay baaral rek diigal ko balaay seey. ay lay la la ay waay waay waay waay waay waay dégg naa ceeb. bajan bajan soodo. léegi nag. dañuy doxantu ndànk. nan doxantuwaat nag fii buñ ko xalaatee rek mu nekk loo xamante ni dañuy dugal léegi léegi si capitaine bi dañuy delluwaat léegi léegi duwaat si beneen capitaine.